ma fa woon c'est pas parce que wàññi sama doom la que ma koy bëri déedéet man sama dépense kër ba léegi maa koy joxe sama courant kër ba léegi maa koy fay may may fay sama ndox c'est pas parce que wàññi sama doom la que dama koy bëri déedéet am na yoo xam ne d'accord ma ci ak te maag moom la concerné maa ngi ciy waxtaan sax ak ñoo xam ne jege nañ ko lool bu ñu amee occasion on en parle damay wax man li nga xam ne noonu laa gisee su ma amee loo xam ne na ma ci ma wax ko léeg-léeg sax ma wax ak koo xam ni xam naa ne mu Vous me laissez bien, comme ça, vous demain. Vous ne pouvez pas C'est très bien. Voilà ça. mën na ko utiliser pour na na ci wàllu bàyyi xel di nga ànd ak nit vingt ans ngeen xëy xëy ngeen bu metti ba vingt ans yeneen àndoon nii di nga jaar ak nit nga defal ko lu bari waaye su bëggee miroir na nga ko tourner vers man ak sama carrière ak ñi ma àndal ak fi ma jaar ak ñoom mën nañu ko utiliser sax buñ demee ba xuloo ak waaye daal dafa du ko baax ndax même papaam ko wax na lii lii lii lii message ba kaw papa ma waxee ak ñoom xëy na sens ba bañ koy mën a utiliser yi bokk su ma xamee ne yow da nga nekk da nga bokk samay staff doom mu leer ma nekk yaa sama doom yéen nekk tous les jours maa ngi wax ne bokkuñu kër mu nga ànd man maa ngi wër wër si fois on se voit très rarement li ci ëpp fii la ñuy par rapport à ce que pensent les gens foog ni que man on se voit tous les jours déedéet man maa ngi sama occupation personnelle moom tam mu ngi ci ay leçons mais su ma xamee ne Diop le mel ni ci staff Wally la bokk constamment il est toujours avec Wally maa ngi leen di gis toujours ñuy nekk alors bu waxtaan jotee bu ñuy waxtaan ci Wally dama koy wax man li nga xam ne moom laa gisee ak li ma léeg ma je le dis que ma gis yor mu bës portable bu nag damay mel ni ku ci xamoon dara kii yëngu dara wax li ma bëgg a wax yëpp parce que bu demee mën naa ko tegal parce que man waa ji juruma man maa jur waa ji deret waa ji daw ci man sama deret mooy daw ci waa ji man li ba pare di ragal wala ma lay raay waaye lii maa ko ci jiitu. maa ngi ko ci jiitu fuuf bu fekkee ne dafa opté à man samay conseil doyu ko c'est son problème man je me suis battu fexe naa ba moom bi mu ñëwee fekk na fi lépp naw naa ko nag ndax jàmbaar la respecté naa ko ndax jàmbaar la parce Euh, gis naa mu osé nga la Suisse du dëkk boo xam ne c'est dafa màgg ci musique africaine non non amul y a même pas beaucoup de de Sénégalais y a même pas beaucoup d'Africains parce que c'est un circuit très la Suisse su Wally osé. dem fekk fu mel ni arena de Genève jomoon na waaye moo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu dem song arena man tëgg naa Genève deux fois waa bu ñuy wax Palais Diop y avait trois cent cinquante personnes ña ma fa yóbbu woon ils avaient pour ça bi nekkee neuf mille cinq cent places wala seeti fexe ba def fa cinq mille cinquante xaw ma cinq mille cinq cent personnes mais bravo fiston bravo Wally bravo fiston bravo bravo Wally parce que li nga xose man day maag samay morom nag ak samay morom de ñamuwuñ ko de te maa ngi koy encouragé waat davantage genre défi yi na ko ñeme que boo diirul doo jàmm c'est très important bu boo diirul dara ba doo ko jàmm su ma xoolee dama toog di xool mbir yi nombre de personnes yi jugee Sénégal dem ba Genève ak li billet bi cher ak ñu hôtel cher la Suisse fait partie des pays les plus chers au monde waaye mën a song bi yëpp non vraiment c'est un vrai vrai du réformer rek foofu moom am naa fierté jur ci dina ci doomu toon sa kanam alors je comprends pas pourquoi wax jëpp fees naa feesul mais loolu wala ay ay waxu comme ni ko moom fils di wooy rek ay waxu bojo bojo la parce que amul sens c'est nul si na ça fait neuf mille cinq cent personnes Un jeune devient du million de fois 5500 et quelques personnes. Mais il mérite des applaudissements. Il mérite un grand soutien. waaye nag ñëwoon naa ko nag di nga sonn parce que tu es le fils de Thione doomu ba Baba Maal doomu Omar Ba doomu doomu keneen donc kenn du la génne moom doomu Thione la nag Thione Seck wong nañ ko xëj kam. coïncidence ko lu ne lu ne loo xalaat man maa gën a sonn ci musicien Sénégal yi de ma génération yoo xam ne li ma bu bu kenn suivre moo tax tam Dieu est moo tax mu may ma waale ah Dieu Dieu est te tant que ñu ni ci moom martabam day gën a yokk parce que yàlla du wax ba pare di ci dellu gannaaw jeune boo xam ne demandé wu kenn dara il se di song loo xam ne ñun ñuy ay bàyyam ñu mun ko song mais dañ ko war a encouragé franchement et puis sans maison de disque je dis bien bu fekkoon ne waa ji amoon na maison de disque mais tubaab bi ñooy cee soofu nit ñi ñu ne à peine nga leen gis à peine parce que quand tu as une maison de disque derrière la maison de disque fait tout à ton insu place la promotion dafa war la salle par la maison de disque mais bii c'est un jeune artiste africain ba Sénégal qui qui mérite le soutien de tout le Sénégal je man mii bàyyi. ba ma demee ci dëgg Genève salle bu tëgg dafa nekk ma dul trois cent cinquante personnes te c'était un record pour xam ne ñoo ñoo ma fi yóbbu alors je l'encourage la Genève bu déwénee su ko mënee na ko defal incha allahu rabbi bu jógee Genève dana song beneen dëkk yaa ngi dégg taxawal ne song salle yu gis nga bu ñot yi saxee rek te du dagg non tëwu daal dina ñëw foofu moom kontaan naa ci Wally Seck toog maa ko ciy sant bu baax di ko wax fiston dóoral daal gis nga ñuy wax ni yëpp buñ dee ay góor waxoon naa ko ca beneen bi dépassé buñ dee ay góor noonu ñoom ñëpp lay yaay ñoom ñëpp lay yaay parce que am na xol il est généreux li mu léegi may néeguma ko li muy par jour man néeguma ko du ma ko def bala càppal ma seeñu ko man nii wax na ma du maye mais moom ni mu koy defee c'est même illogique mais il est comme ça il est wàll comme ça te nag yàlla nag mais xanaa nag yàlla nag yàlla moom fu la yàlla futur artiste planétaire bu Sénégal futur footballeur meilleur bu Sénégal futur magistrat futur président futur miss miss sax yàlla pàccatal na ko ba defar ko ba teg yàlla moom jamono bi te bu ko neex la koy euh, defee en dispatching lii def ni sànni fekk na renforcer mu yokk nag expérience am parce que boo xasee ba jiitee un groupe musical benn fans yi la say xarit ak musiciens yi nekk ak yow musiciens am nañu fumiste am nañu rambaaj am nañu waaba jiiba combal ndëppet comme ni ñu koy waxee am na yoo xam ne ay waxtu dëgg loolu am na ci groupe yëpp te du fi jóg ba yëngatu la c'est à lui mooy xam war a xam ne ñi ko ci nax ak ñi nga xam ne dëgg lañ koy wax sama papa daal wax naan noonu bu réglé moo ma gën a soppe bu dof noonu bu réglé boo xam waaye dafa réglé moo ma gën a soppe boo xam ne dafa dof na fexe ba ràññeetam yooyu parce que ñun dañuy raasal rek maanaam wàllu wéy moom mi jël lenge yi te am nañ ci yaakaar lool parce que li muy mën na bëgg na ko yàlla may na ko ci xel ak fit non xoolal bien boo ñu wax ba ëllëg bien boo ñu wax ba ëllëg. Warel Ballago est un vrai, vrai, vrai, vrai Faramalien et je suis fier d'avoir un fils comme Wally bu loolu weesoo